mbokk ba tey euh, ni leen ko waxee woon rek euh, ci euh, màggal gi nga xam ne mooy màggalug Seydina Aliou Seck ñu ngi toog ak sous-préfet bu Mabo sous-préfet ñu ngi lay nuyu di la ñu ngi leen di fay di leen sant leen gërëm. ñu ngi ko gis sànq ci cérémonie officielle bi ay doléances yoo xam ne waa dëkk bi ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy sàkku lu mel ne wàllum yoon ba ci noonu wàllum ndox ak yooyu noonu fan ngeen toll ci jéego yooyu. waaw jërë ngeen jëf ñu ngi sant yàlla jërëjëf sallallahu alayhi wa Eh, effectivement ñoo ko déggandoo euh, li nga xam ne itam mooy yoon bi euh, ku ne xam na ne ay jéego yu am solo euh, def nañ ko si lu ko jëlee daaw ren daanaka li nga xam ne mooy diggante Mbickitaan ak Maabo ku ne xam na ne yoon bi daanaka léegu pare la nga xam ne moo des mooy revêtement bi mooy xëy na teg goudron bi xëy na mooy des boo jëlee boo jeexalee loolu nga jël diggante Wanaar ba Kaffrine également ñu ngi ci. commencé woon nañu xayma yoon bi également xool impasse yëpp ñu ngi ci ba fay nañ ko léegi euh, incha allah xam naa du yàgg nawet bi xëy na moo xam gàllankoor mbir mi waaye incha allah du yàgg xëy na bu nawet bi jeexee euh, ñu ngi ci njeexte nawet bi nañu commencé liggéey bu soobee yàlla. Euh, également jëmale ko également dina jàll ba wanaal gu mag incha allah yoon bu soobee yàlla bu loolu soo li nga xam ne mooy ndox mi tam ñu ngi ci dégg nañu doléance également Fresco moo moo nekk fii ñoom itam ay jàmbaar lañu. waaye daf fekk na xam nga liggéey moom daanaka dam ay du ñàkk ay gàllankoor ak itam torof yooyu itam également li ñu ci wax nañ ko gën a saytu ñu gën ko luñatu euh, li nga xam ne mooy saaf également yi nga xam moo ci war dañ ko def waxtaan sa également état bi nga xam ne ñoom ñooy yor Flexo euh, donc loolu également ñu ngi su baax a baax ay jafe-jafe du ñàkk xam nga ndox moom daanaka lu xaw a métti la fii euh, waaye nag am na beneen solo solution mooy forage bi également bu ñu ko defee bu mottee yaakaar naa dina wàññi coono lu bëree bëri li nga xam ne tam mooy courant bi également ñu ngi ci courant bi ñu ngi ci Euh, xam nga euh, maa ba ni mu tëddee dafa am wàll boo xam ne Senelec moo ko yor am beneen wàll boo xam ne waa ERA ñoo ko yor donc daanaka boo xool dëkk yu bëri tey xëy na amagul courant waaye poto ñëw na donc la mooy li ñu naan mise en service loolu nag bañ leen euh, bañ joxo ñoom li ñu xam mooy notification bi nga xam ne moo jógee Dakar te itam bu soobee yàlla nañ ko topp ba nga xam ne vraiment nañ ko gën a gaawal jéem a diligenté li nga xam ne mooy processus bi ba fan yu néew incha allah courant bi mu nekk Euh, ku ne xam na ne euh, actuellement Sénégal mu ngi euh, jëm ci élection muy le 17 novembre bi nga xam ne moom lañ jëm muy législative yi lan ngeen di sàkku ci seen askan wi nga xam ne ñoom ngeen yilif jamono ji waaw lu ñuy ñaar rek mooy yàlla may ñëw egg si jàmm def ko si jàmm mu jeex si jàmm ba vraiment ñoo xam ne Sénégal moom mooy moom lépp Sénégal kii gañ donc askan bi ñu leen jaar rek ñu dal ànd ak yaa teggin ba bu ñu si yeggee rek ku nekk la nga xam ne mooy la war li nga xam ne sa devoir citoyen euh, civique nga def ko jëlal sa kër bañ am coow bañ am xullo bañ xeex incha allah. c'est honorable député Samba Dang du département de Birkelane. Euh, honorable euh, lan moo waral teewaay bi ci màggalu Seydina Aliou ñu ngi leen di gërëm sant bu baax a baax a baax di leen ndokkale ci bés bi muy bés bu màgg mais bës bu màgg ci département Birkelane bës bu màgg ci commune bu Maabo bës bu màgg ci wanaar ndax ko xam wanaar wax xam ko ci diine mais rawatina daaru salaam wanaar eh, Seydina Aliou Seck nekk ci jàmbaaru lislaam yi eh, jàmbaaru Serigne ñu ñëwoon nag tey teew ci bés bi ndax bés bi jàpp naa ne képp ku fi teew lépp lu ci soxla bokk ci fas yéene mu mu defal la ko yàlla defal la ko rawatina ñun ñi nga xam ne ñoo ngi gunge le président de la république Bassirou Diomaye Faye di gunge son premier ministre euh, Ousmane Sonko avec tout ce qu'il fait avec l'ensemble du gouvernement pour l'intérêt du du pays donc bu bës bi amee ñu dëkk ci département bi yoon la daf ñoo war sax ñu ñëw avant fekkee ko après ñu xaar bu gan yi ñibbi ñu soog a ñibbi kon boog ñu wés moom suñu bës la. Ah. Ah. ah du ñàkk ñëw euh, laaj la ci politique. Euh, comme mhm. que ci ngay yëngu. Ah. Euh, nan nga gisee déjeuner bi nga xam ne daf nañ ko assemblée. waaw mais loolu yoon la dissolution bi moom yoon la ndaxte ki nga woo nuyu ko président de la République bu la nuyoo benn yoon da nga ko war a fay waaye président daf leen a nuyu ci déclaration ci débat d' orientation ko. président nuyuwaat leen ne leen dafa amoon dama amoon argument de campagne tokka argument bi dama bëggoon wax dëgg yàlla ngeen jàppale ma ci mooy tas au conseil des collectivités territoriales ak conseil économique social environnemental ñu bañ koo fay ñu menacé ko ne ko président non seulement fayuñ la ñaari yoon waaye yow sax dañuy ñëw far nag gouvernement ba nga yor sax ñu daaneel ko mu ne nag kon ñi jóg na ma yeew seeni loxo te loi moo ma ko may muy dissoudre assemblée a ndax politique bi ma bëgg mu jàll ma am bu bees boo xam ne moo koy ñëw jàll lii rek moo waral mu mu ko. nan ngeen di la ñu a jëm le 17. incha allah rabi ñu ngi ci di ñaan askan bi ñu jàppale ñu pour le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye li mu bëgg ci réew mi mooy jub jubal jubbanti li ñëpp bokk ñëpp jot ci bu soobee yàlla ñu doxal ko incha allah rabi. moo tax am ngeen yaakaar ci gox bi ngeen nekk ne da ci am ah wax wax ko te ñoom itam gis naa ne gis nañ ne bu baax a baax li ñu ci waroon def def nañ ko parce que ñu ngi koy seede fu ñu génn ñu wax ko kon jàpp naa ne incha allah rabbi la ñu waroon def di ñu ko def parce que dañu ci a mel ne wàllum yoon ak courant am ndox mu yomb loolu géej gi dañ cee fekk léegi nii rek maa ngi doon jéem a woo njaay bu Senelec mhm. pour ñu taxaw ci courant bi par rapport ak euh, gàmmu bi boobu gàmmu bi jàll mm-hmm. mais loolu da ñoo fekk ñu ciy rek suñu bopp ci ASER agence de euh, des sénégalais euh, agence pour l'électrification rurale mm-hmm. te incha allah rabbi ci gën a góorgóorlu ba nga xam ne li nga xam ne moo ñu war ci courant war ñu ci ndox parce que dinañu fekk ñu koy xeex dinañ ci jéem a fexe ba dëkk yëpp jot ci commune bu Maabo ci département Birkelane maa leen di baax a baax jërë ngeen jëf a